genre dañuy sawar a ñëw prêter ñu mekkoon bi ma leen di woo midi moo jotoon amuñu jot en premier lieu moo koy jël ñëw yëpp moom moo koy moom moo koy moom moo koy jiite village mu ngi nii c'est le village de de jam lañu bëgg nag nañ waxtaan jamu, jàmm ak njëkk ak teranga ba mu yegg ñoo ngi leen di gërëm sant donc ñoo délégué na leen pour ñu wax. ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen coono ndax naaj bi tàng na. waaw am alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu leen di ñu seen tur ak seen sant dilen di ñaanal yalla itam yal na leen yàlla taxaw yalla sam rew mi sam a doomu aadama yëpp yalla def jamm def jamm ci rew mi eh, li ñu def fi nak dama la defalé teranga war nga ko sant war nga ko gërëm wala ko ñaanal yalla mo mo waral li dañu amon jafé jafé bo xamante jafé jafé bu metti mo walu courant ñi nga xam nga ne suñu rak bi nga ñu baax mu dox ko ci ay xaritam ci am di jamam ñooñu itam nangul ko nangul ko ñoom ñoom itam loolu moo tax itam ñun itam ñu bugg leen tere nañ leen ndax li tax ci la defal lu baax war nga indi nañ ko fii loo xamante ne matul at sax wala matul ay weer sax mu mun a ñëw lépp taxaw ba ba lépp mun a taxaw kon ki nga bi ci njiitu réew mi kon mu sant leen gërëm leen ngir itam pour yëgal réew mi te mobiliser nekk benn bokk nawet bàyyi lépp loo xamante ne jafe-jafe bu am ci réew mi ñu mun koo saafara ci biir siin président bi nga xam ne nag moom moo ba mu faju kooku ku sant ku jar ku jar sant la ndax bari na ay politiciens yu bëri yu ñëw fii ci dëkk ni dina la defal dina la defal mais bokkut ak kii nag kii nag moom dañ koo wax mu jóg taxawti. waaw fële ñu taxaw ci ban xool nga Ndiaye. moom it naana naana. non non mi ngi kii mi ngi. moo ngi kële waaw waaw dama dama indi kii quoi. yow.

Bonjour Moussa Diopipa, moi c'est Mamadou Moussa Euh, je suis un membre actif euh, du cadre euh, du, collectif du village de Godagen, dans la, dans la commune de Niahar, dans le département et la région de Fatik. Qu'est-ce qui se passe Voilà, la situation elle est là, elle est très simple. Euh, Godagen, grâce au PSE, qui est l'épine dorsale du président de son, Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Maxal, ce village a bénéficié d'une électrification, avec le concours également de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Maintenant, ce village, conscient euh, de l'impact que cela aurait dans notre vie de tous les jours, aurait dans, euh, dans, la vie euh, de, ce, de, ce, cultivateur de tous les jours, ce village est conscient maintenant de ce que, de ce que cela représente pour, pour, les villageois en tout cas. Maintenant, ce denrée rare, ce bisou, ce projet qui n'est pas du tout chimère, et quoi qu'on puisse dire, c'est un, une grande réalisation de l'État sénégalais. Ça, on en est conscient, on le sait. Parce que ce village Zadis, qui, depuis Belle Lurette, depuis des années, les femmes, les mamans que vous voyez là, euh, euh, au moment d'enfanter, faisaient des milliers de kilomètres pour allier les, quelques peu hôpitaux qui sont dans la région et qui d'ailleurs ne sont pas très bien équipés. Ces femmes-là ont, eu à souffrir parce que Godagen n'avait pas d'électrification. Godagen était peu connu. Et si un village comme Godagen, qui n'a pas un nom politique fort, qui n'a pas un leader politique fort, qui n'a pas un marabout en tout cas connu, si Goregan parvient à pouvoir bénéficier de cette électrification, c'est parce que bien, bien évidemment, Moussa Diop, toute population du Sénégal, tout village du Sénégal, quel qu'en soit le lieu, quel qu'en soit le village des profondeurs, pour avoir une électrification. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Ça, ça c'est quelque chose qui est vrai. On en est conscient. Et un serreur, un serreur, bon sein, bon teint et bon sang, quand vous faites quelque chose pour lui, il est à même de pouvoir vous dire merci. Godegen a voulu maintenant, en dépit de tout cela, en dépit de tout cela, et avec tout ce qui a été fait depuis le début, Godegen veut remercier. <coughs> Qui remercier Son Excellence, le Président de la République du Sénégal, pour ce grand chantier. Godegen veut remercier. Godegen veut remercier euh, le ministre de l'Énergie, c'est le ministre de tutelle. Il veut le remercier parce que euh, grâce à ce ministère, grâce à ce plan Sénégal, qui, je rappelle, est l'épine dorsale de la politique de notre président, le ministre de tutelle a fait un grand travail là-dessus. Goregen veut le remercier. Et ce ministre, son nom, c'est bien sûr Mansour Eliman Khan. Nous voulons le remercier de vive voix. Et ceci est l'occasion, c'est le moment et le lieu de lancer un appel solennel à l'égard de ce grand monsieur-là, de la République du Sénégal, pour lui dire Godagen est en train de fêter. Goraghen est en train de dire merci. Et nous voulons, monsieur le ministre, que vous soyez présent. Quel que soit la raison. Quel que soit le fait que vous soyez occupé, on, veut vous voir ici dans notre village, sous nos terres. Et, monsieur le ministre, par anticipation, nous vous disons bienvenue en terre fatigoise de Godaguen. Je vais venir à cela. Mais euh, ne veut pas seulement remercier le président et le ministre de Il y a le ministre du PSE. Il y a le ministre du PSE qu'on veut remercier. On le, remercie parce que c'est grâce à ce plan, ce fameux plan Sénégal émergent, que Goregen a pu avoir de, l'électrification. Ce ministre, on veut le remercier de vive voix. Et il s'agit bien sûr du docteur Cher Kanté. Lui aussi, c'est l'occasion de l'inviter à cette cérémonie qui aura bel et bien lieu le 30 juin. À cela s'ajoute également le chef des ministres, à cela s'ajoute également euh, le, ministre, le Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun John, à qui nous invitons et à qui nous lançons un appel solennel. À tout ceci, à tout ceci s'ajoute également le directeur, le directeur de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Son nom s'appelle Baba Diallo. Nous le remercions, nous l'appelons, monsieur le DG de Lazer, nous, voulons vous voir aux terres de Godegen. Nous voulons vous remercier de tout ce que vous avez fait depuis le début. Donc, c'est le lieu, le moment et l'occasion que nous saisissons pour remercier ces gens-là, pour inviter ces personnes-là. Pour inviter ces personnes-là. Nous invitons tous ceux qui, de près et de loin, ont eu à participer dans ce grand sentier de l'État, ce vaste sentier qui a été un long processus, un long processus, je dis bien, qui nous a amenés ici. Nous allons remercier nous allons fêter parce qu'on est des serrères et un serrère a des qualités. Nous avons l'éthique, nous avons la valeur, nous avons la déontologie pour le faire et on le fera. Personne ne nous en empêchera. Moussa Diop. Ok, par rapport maintenant à tout ceci, Goregen dans sa totalité, Goregen dans sa globalité a cotisé. Même les nouveaux-nés ont cotisé. Tout le village, on est agriculteur et en période de soudure on n'a absolument plus rien. Les gens ne mangent pas à leur faim. Mais malgré tout cela, malgré tous ces facteurs et tous ces faits qui existent et qui existent encore, Godegen a, cotisé. Il y en a des gens qui ont vendu leur bœuf, d'autres ont vendu leur poulet, d'autres ont vendu leur poule pour pouvoir dire merci au chef de l'État du Sénégal. On a mis, on a mis nos maigres moyens, on a mis nos maigres ressources pour se cotiser et confectionner des t-shirts que nous portons. On a mis des, nos maigres moyens pour confectionner des banderoles avec le concours bien sûr de laser et de toutes les structures de ce pays qui ont participé dans ce projet. Il se trouve que des hommes politiques de ce pays veulent nous en empêcher. Des personnes qui sont très influentes au niveau du département de Fatigue, des personnes très influentes au niveau de la région de Fatigue sont en train de nous en empêcher. Et nous ne dit pas des choses pour les dire comme ça. On ne parle pas pour parler. Nous avons vécu avec eux. Quelques-uns, pour quelques-uns, dans leur bureau, pour quelques-uns, chez eux, dans leur maison, on a vécu des attaques, on a subi des attaques de leur part. Mais ce temps d'antenne, c'est l'occasion et le moment de dire que Godagen, c'est un village historique. C'est un village qui a été conçu fondamentalement par des grands messieurs. Des grands messieurs qui nous ont inculqué l'éthique et la valeur, qui ont forcé nos pensées et nos mentalités. Et on ne compte pas reculer. On ne recule pas et on ne reculera jamais. Nous allons, nous allons, je dis bien, nous allons fêter Personne ne nous empêchera de dire merci au chef de l'État du Sénégal. Personne ne nous empêchera de dire merci au Premier ministre. Personne ne nous empêchera de dire merci au docteur Cheikh le ministre du PSE. Personne ne nous empêchera de dire merci à Mansour Eliman Khan, le ministre de l'Énergie et du Pétrole. Personne ne nous empêchera de dire merci au DG de l'Azer Baba Diallo avec toute son équipe et à la tête de, laquelle un de ses directeurs, le directeur technique du nom de Maudo Malik Gay. C'est des gens c'est des gens, c'est des gens à qui nous respectons beaucoup. Et parmi ces gens-là, il y a un grand monsieur, un grand monsieur qui a beaucoup œuvré dans la réalisation de ce projet. Un grand monsieur qui a eu à former quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est grâce à lui que nous avons pu décrocher ce bijou. Et ce grand monsieur, il, s'agit, il, se nomme bien sûr Monsieur Omar Youm. Monsieur Omar Youm, nous vous invitons. Nous, Maître Omar Youm, nous vous invitons nous vous appelons à venir. Et comme je l'ai dit tantôt, par anticipation, nous vous, disons bienvenue en terre fatigoise de Godegen le 30 juin à partir de 9h. Jour de fête, jour de remerciement et on le fera avec les de Dieu. C'est ce qu'on pouvait dire. C'est ce qu'on pouvait dire de prime abord. Maintenant, nous laissons le cours des choses. nous, nous écoutons les réactions d'après. On a les preuves. Les preuves, bien sûr, qui peuvent faire tomber des têtes, on les garde pour le moment. Et garde à celui qui se mettra devant sur notre chemin et devant nous pour nous empêcher cela. On est prêt à donner, on est prêt à donner notre vie, on est prêt à se sacrifier pour ce bijou, pour ce bijou très précieux et d'ailleurs très rare. Ces élèves-là, ces élèves-là qui sont là, ils ont eu à apprendre leurs leçon avec des lampes tempêtes, avec des bougies. Et c'est le moment que, cela s'arrête parce qu'on est au XXIe siècle. Et au 21 siècle, toute population qui veut aspirer au développement, ça sait que ça passe inévitablement par une électrification. C'est le gaz de tout développement. On l'a aujourd'hui, on compte remercier, on compte fêter et personne ne nous empêchera. C'est Euh, man ma ngi tuddu Ama man may wax ci kaddu xalé yu dëkk bi Ama Samba Ngom maay wax ci kaddu xalé yu dëkk bi li xew tay moy comme ni ngeen ko gisee ñew ngeen godagen godagen di dëkku ciosan ak aada di dëkku jaraaf te ku wax sin xam rôle bi jaraaf doon dox ci walum sin te fini nii dëkku jaraaf la ki doon jité dëkk bi jaraaf lay nek waaw Godageen moo ngi nekk dëkku àll boo xamante ne téeméer euh, junni ak juróom-benni téeméer yi nit a fi yeewo donc du dëkk bu ndaw nekk tamit dëkk bi nga xamante ne bokk na ci dëkk yi gën a màgg ci commune u Niakhar département Fatick euh, région Fatick tamit waaw léegi li xew mooy ñun ay béykat lañ ay béykat ak ay sàmmkat lañ waxtu wii nii ku nekk xam na ne métti na ci béykat te métti na ci sàmmkat ñun dajale nañu suñu alal mag ak ndaw góor ak jigéen dajale suñu lépp comme ni ngeen ko gisee fii yëpp bale nañ ko sax pour lan pour sant ak gërëm suñu président de la république son excellence monsieur Macky Sall Légi lu tax ñuy sante di gëreum suñu président suñu président def ñoo defal lu jafé jaarale ko ci plan bu tuddu Sénégal émergent lu jafé lolu moy lan moy suñu dëkk dafa am courant suñu dëkk dafa am courant Légi avant ñuy am courant amon nañu ay jafé jafé, jafé jafé yoyu dem na ci ñakum karangé da nga doon yar sa jur ñu ñëw sacc ko ñemewoo won dox digante kër ak kër suñuy xalé ci ay lampe pétrole lañ doon jàngee saxar ci di leen dugg mën na mën nañ ci jëlé feebar ak lénen ak lénen fini ku fi ñëwoon jóge dakaru ñëw fi sa téléphone day fay do am foko ko chargé te xam nañ ne te xam nañ ne tey téléphone bokku na ci dundu doomu aadama rax si dolli connexion internet ku amul courant sa téléphone su amul courant nooy mën a connecté woo loolu noonu nekkoon na jafe-jafe yokku ci tamit bokkoon na ci suñuy jafe-jafe suñu xale yi pour ñu dem jàngi dañ doon dox ay kilomètres loolu ba léegi ci jafe-jafe la bokk ba tax na ñun am nañu xale yu bëri yoo xam ne bay nañ école ñoo ngi fi toog deful dara amuñu formation jàngatuñu am nañ jafe-jafe tamit bu mel ñàkku bërëbu fajukaay parce que bërëbu fajukaay bu fi gën a jege moo ngi nekk à 4 kilomètres te bërëb boobu noonu soo fa demee matériel li ñu soxla amuñu ko donc da ngay obligé daw lu mot juróom-ñaari kilomètres pour jot bërëbu fajukaay léegi nag ma ñëwaat ci li waral bés bi nii mooy am nañ courant wàllum kaaraange léegi tiitatuñu ko ndax suñuy jur legi mën nañ yaakar ne kenn du ko jël suñuy dom mën nañ jang ci ay lampe ay lampe courant ak lenen ak lenen wow courant bi lum ñu fajal bari na legi li xew moy ñun ñi nek ay wa deku all dajale suñu lepp ne dañuy sante di gëreum président de la république ci plan bi ñu dem ba gis ne am na ñoo xam ne taxaw nañ seen taxawaay mooy lan mooy yàqal ñu ñi nga xamante ne ñoo ñu waroon a jàppale jàppale département bi mu développé jëm kanam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy waxal yor suñu kàddu ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor suñu kàddu fële ca bërëbu penc bu mag ba di assemblée nationale ak fenen ak fenen war nu di défendre di wax suñuy métit di ñuy safara suñuy problème ño taxaw pour yàqal ñu ñun nak paré nañ ak li ñu am képp ku mëna ñëw jappalé ñu ñu sante gërëm président de la république ak ministre bi yor walum courant gi di ministre de l'énergie et du pétrole Mansour Eliman Kan Mansour Eliman Kan ak directeur u ASER Baba Diallo Baba Diallo mi fi indi kenn ci ay ndawam mu taxaw ci liggéey bi ba mu toll nii nekk waa ASER ak euh, kooku noonu di Maodo Malick ak maître Youm mi nga xam ne bokk na ci ñi tàggat ki fi ñëw taxawu liggéey boobu ba mu sotti ñooñu ñu ngi leen di sant di leen woo tamit di woo waa di woo waa ASER ñi nga xam ne ñëw nañ taxaw fi liggéey liggéey bu rafet di woo madame Marème fay sàll premiere dame du Sénégal di leen woo ñu ñëw jàppale ñu ci bés boobu di woo Matar Ba ministre des sports gis nañ ci tax gis nañ ci taxawaayam xam naa ne sax su fi nekkoon mën na am du ñu yegg si fii waaye moo nga fële ca mondial ba ñi ngi ñaan yàlla mu ñibbisi indaale ndam. ñoo ngi woo Cheikh Kanté ministre du PSE di woo monsieur Ali Koto Ndiaye ministre conseiller di woo Arouna Coumba Ndoffène Diouf ministre conseiller di woo góor gi Ndong ministre de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne di woo Fada Diène honorable député kooku tamit xam nañ ne su fi nekkoon mën na am du ñu yegg si fii soo gisee nag tey ñu jël kàddu am antenne di wax xëy na ñi taxaw pour yàqal ñu mën nañ yegg foo xamante ne ñun mënuñ sol suñu dàll ba yegg fa waaye ci antenne bii lañuy ñuy profité di yëgal waa Sénégal di yëgal àdduna bi yépp ne muy naaj di taw ñun dinañ taxaw bés boobu sant gërëm président de la république son excellence jërëjëf merci beaucoup ñu ngi leen di sant leen gërëm. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala rasulillah sayyiduna muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa man la Sada Diouf nekk notable dëkk ci Godegen euh, mbokki siin mbokki Saalum mbokki Sénégal yëpp ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam Godegen dafa xewle te xew bi le 30 juin la muy samedi bi ñuy dëgmal si xew bi xewul lan la xew bi xewu électrification rural la waa Godegen dañoo am courant courant boo xam ne bii li ñu ko amee dafay yéeme ndax ci weeru mois de juillet juillet daaw ci lañ commencé samp poto yu njëkk yi waaye balaa mois de mai 2018 fekk na lamp yi tàkk nañ loolu jar na sant yàlla bu baax a baax ñu bëri bëgg nañ ko te amuñ ko ci kaw loolu courant bi partenariat la partenariat boobu ñu war cee sant sant kan sant suñu borom mi nga xam ne bii moo ñu indil courant bi sant itam Macky Sall bi nga xam ne bii mooy président de la république lii ci ay pexeem la ci ay plan la ay chef d'état yu bari jaar nañ fi waaye Godegeen mos a am lii kon Godegeen bu amee lii si magistère Macky Sall. war nañ koo sant war nañ koo gërëm waaw loolu loolu mooy wax ji Godegen nag dëkku béykat la waaye dëkku sàmm la bu ñu seetee ay at ci at yi nga xam ne ñoo paase mën nañoo wax ne euh, mën nañoo wax ne Godegen Godegen càcc gi bëri woon na fi lool ndax ñàkkum courant Euh, ruur gi bëri woon na fi lool ci jur yi ndax ñàkkum courant waaye daanaka bu ñu yeboo ñu leen loolu deñ na fi léegi ndax courant bi mbedd moo mbedd moo jaar day leer nañ bu ko defee ci kaw loolu balaa ñoo jàll si leneen ñu njëkk a sant ñi nga xam ne ñii mooy euh, euh, Macky Sall ak ñi mu jiite Macky Sall ñoo ngi koy sant bu baax a baax mooy président de la république ñoo ñoo ngi séentu itamit ndimbalam. ci ci suñu bés bi ki nga xam ne kii mooy le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne moom it ñu ngi koy séentu ci bés bi di séentu itamit ndimbalam euh, ki nga xam ni kii mooy maître Omar Youm directeur de cabinet président de la république moom ñu ngi koy invité ci bés bi ki nga xam ne kii mooy Mansour Elimane Kane ministre de l' pétrole moom it ngi koy séentu ci bés bi ñoo ngi séentu itamit loxoom ak ndimbalam ki nga xam ne kii mooy maître euh, Baba Diallo directeur général Laser ñu ngi koy sant bu baax a baax ñoo ngi séentu ngërëmam ñoo ngi séentu ndimbalam moom it Maodo Malick Guèye kooku dañ koy beral ngërëm beral ko cant ndax lii moo waral waaw lii moo waral kon kooku dañ ko tàccul bu baax a baax a baax tàccul leen ko bu baax a baax waaw euh, euh, madame Marème Faye Sall moom it ñoo ngi koy invité ji koy ñoo koy invité ji bi incha allahu taala euh, ki nga xam ne kii Matar Ba ministre des sports ñu ngi koy invité ci bés bi docteur Cheikh Kanté ñoo ngi koy indi ñoo koy invité ci bés bi Ali Koto Ndiaye ñoo ngi koy invité Arona na Ndoffène Diouf ñoo ngi koy invité ci bés bi ak Papa Gorgui Ndong ministre de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne. muy ministre kooku euh, da doon jéem a dox suñu digganteeg bés bi pour bés du réussir woote na ay yoon yu bëri woote woote na ay ci ay ministères yu bëri. yëgal leen ne waa Godé Gane seen bés bii kat fomm na waaye lii nag weddi gis bokku ci bés bi bu soobee yàlla le 30 juin dina taxaw waaw bés bi fii ku fi ñëw le 30 juin di nga gis di nga dégg te di nga kontaan. waaye ñun daal suñu bës bi ñoo ngi yëgal waa Sénégal ne courant bi nga xam ne moom la moom la waa Godogen am muy courant bu bees nga xam ne day doon ñëw fii ñoo ngi ciy séntu lu bëri gis nga fii ñuy waxee nii école publique la école primaire publique gis nga ni mu mel nii kenn clôturé wu ko bu ñu ko sañoon dañ koy clôturer gis nga bu ñu ko sañoon suñu diggante ak tëli tëli bu ñuul bale muy saañ nga xam ne suñu diggante ak saañ un kilomètre cinq cent la bu ñu ko sañoon dañ koy bitumer dégg nga que bu ñu ko bitimee woon day facilité dox bi day faciliter dem bi ak dikk bi gis nga bu ñu ko sañoon fii Godegeen 1600 am ñoo fi yeewoo mérité nañu CS mérité mérité nañu lycée loolu bëgg nañ ko ci dëkk bi dégg euh, centre de santé bëgg nañ ko ci dëkk bi ndax fii jigéen joo xam ne ji dafa ëmb bëgg a wasin day dem ba saañ wala mu dem ba Niakhar wala mu dem ba wala mu dem ba Fatick. kon fii ci dëkk bi ñoo ngi ñaan président de la république nañu sampal fii centre de sante loolu bëgg nañ ko ci dëkk bi ñu ngi koy ñaan dégg gis nga dëkk bi wax naa la sànq ne la fii euh, euh, euh, ay sàmmkat ñoo fi dëkk ak ay béykat gis nga ñi jóge ko côté gii côté sow di jàll di jàll nii yor ay nag dañuy bëgg a nàndal seen jur moo tax gone gi buñ ko sañoon forage am fii forage boobu ñu ngi koy ñaan président de la république ñu defal ñu forage fii ci dëkk gàttal daal loolu bokk na ci suñuy doléance waa kenn nit mënta mënta mënta mënta xam lépp wax lépp waaye lii daal bokk na ci li nga xam ne lii mooy suñuy doléance kon bu ko defee ah, ah, ci gàttal ñu yemale ko foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant li gërëm. tudd Mancaare waaw dëkk Godogan metti na ndagam góor ñee jooy ak saak jigéen ñi jafe-jafe yi mu ngi nekkoon ci wàllu courant yi parce que ñun ñooy togg guddi ñun ñooy wal guddi ñun ñooy dox guddi suñu doom yi dañuy jàng dégg te bu nu amul làmp bu nu amul làmp du nu mën a jàng xale yu bëri ñu ngi nii gis nga xale yi ñu toll nii ñoom ñëpp dañuy jàng waaye amuñu amuñu woon courant ñu toog ba nit. ku xam ne ku jullite ku baax ah indil ñu lii courant ñu di ko ci sant di ko ci gërëm li ñuy jiital nag ci sant bi moom Macky Sall lañ ci jiital parce que bu nangul woon kon du ñëw fii bu nangul woon kon courant du dugg si fi kon nag bu yaree ay doom ah ci njullite yar leen ci teggin yar leen ci xam dara ñooñu dimbali ñu ah indil ñu courant fii muy kan muy Maodo Malick ak yum directeur yum ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ñum ñum ñu gisé ñum ñu foré ñum ñu mënu ñu ko wax bu reuy mbegté bu reuy lañ ci am parce que amul amul leader bu jaarul fi ñu diko ko ñaan courant te amuñu ko xana yalla ne won ci loxo Macky Sall la koy jaarale indil ñu ko kon nak dinañ ko sant bu baax gërëm ko yalla ak mom la de mo taxit bayiwunu kenn ñu ngi ci jital ku nekk ministre ta baax xam nga Macky bu muy fal moo doon wax ne fañ na ngooroo te roog a dib na xolum o fañin fañ fañ fañe te waaj caacaa moom la Macky wax hmm? moom la Macky wax Macky Macky Macky Macky Macky Macky Macky Macky ah ma wax ko ci séeréer ma wax li ma wax lool ah ah li ma wax ana seereer mancaare ne'eem gen god a gen ka i miñ'uno mbug gara fañtana in parce que in in rew we god a i ngij'u i ñoot ka i i njegee dispensaire nanano ku i mbugna saañ i njofu i moof koy bo kene gar me wala wala Fatick i moof koy bo kene garna xa ɓay in i ngidma roog sant roog i ngaƴe o koy in way ngooya directeur ke fop in way ngooya teen teen koy njaw njaw ñaxar ku kiin a fina mene njaw ñaxar a dimle a no ten a a nanano so ndiiki a ah, ñu ngi ci in way ngooya teen a xene in way ngooya teen a Cheikh Kanté Cheikh godagen ten jegun nanano fata gar in way ngidman a paax fata gar mene a dimle a in Matar Ba fata gar ten jegu tiye fata gar a damtida in waaw Marème Sall Marème Sall ñu lay woo ah ge pare bés fe a jega ba pare wena yaqan wañit ke xara jeg bés fe geen wa ba pare kiin waage ta dara waaw oxu garna koy o dimle ida in gareer na dimle ida in o xaƴa in fo njambur i ndama daawa jeg kiin waage taaga dara wa kazi za gaba léegi heure bu mu koy teg mën nañ koo xam waaw kii day woo Moussa rek d'accord day woo Moussa Bukitio banderola na mundo ni. Mama, Baba,